Pape Medoune Niang secrétaire administratif sous section SUTSAS centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni tey nag dañoo génn pour wone sunu naqar di dénoncer situation bi nga xamante ni moom la hôpital bi di dund ndax toog na ñetti weer yoo xamante ni amuñu ndox te képp ku ne xam nga ne ndox dafa am njariñ ci dund doomu aadama rawatina ci bërëb boo xam ne bërëbu fajukaay la docteur yi bu ndee faj amuñu ndox muñu raxasoo malade yi ak seen i amul ndox moo xamante moom la ñuy jëfandikoo te loolu dafay yokk lawal ay jàngoro ndax jàngoro yi nga xam ne docteur bi mi ngi koy laal ci malade bi su raxasuwul bu laalee beneen malaat da koy wàll loolu moo tax ñu ne dañuy interpeller le président de la république monsieur Macky Sall xamal ko li ñuy dund fii na ko rétablir dans les meilleurs délais ndax c'est un de niveau 3 hôpital bu mag la boo xamante ni fu ne la ñuy lay nit di ñëw di fi fajoo si te loolu ay citerne ndox yu mel noonu nekkul ndox yu mucc ayib yoo xamante ni doomu aadama war na ko mën a utiliser loolu benn la ñaareel bi dañ fi am benn batiment boo xam ne gouvernement bi tàmbali woon na ko waaye bi fi mbas mi jaaree euh, ñu defoon ko CTE mais ñoom dañuy latoone CTE bi moo tax moo tax yëggalewuñ ko léegi ñun wut nañ yeneen i bâtiment transféré fa CTE ba ñu bëgg nag travaux yooyu continuer nu mu gën a gaawee bu ko defee hopital bi mën a dellu ci ay bu gën a mucc waaw suñuy kilifa bind nañ ay lettres jox nañ ministre de l'hydraulique ministre de la santé bi nga xam nañ ci moom la ñu aju jox na gouverneur préfet ak ñëpp ñu nga xamante ni war nañ koo dégg dégg nañ ko. nee nañ sax ñoom directeur bi nga yoo xam ne moo yor wàllu ndox mi mi ngi doon jokkoog moom ba naan ko am na yeneen ñaari forage yu pan ci biir Touba mais yéen la ñuy njëkke waaye dañ leen bëgg a xamal ne hôpital bi mooy priorité te bëgg nañ dans les maire délais ñu rétablir la situation. hôpital bi dafa am forage boppam forage bi moo pan pan bi nag léegi mu mat ñeenti weer. waaw panne bi nag xëy na c'est une panne sérieuse waaye nag ku wax hôpital wax ne ndox voilà looloo tax nag ñu génn pour ne loolu ñëpp yëg ko ndaxte fii ak ay fan wala fii ak weer nit ñi mën nañu am ay jàngoro yoo xam ne kenn xamul fu mu jóge fekk ndox mi moo ko indi waaw màggal gaa ngi ñëw timit te boobaa maladie dañuy gën a bari donc loolu lañ bëggoon sàkk ko ci suñuy njiit ñu lijjanti ko nu mu gën a gaawee